mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral nu ngi dellu di sant yàlla ci li nu leen mën a dégtal seen émission yoonu njub mbokki déglukat yi wolof njaay nee na garab gu tooy dina mës a wow waaw nun ñépp xam nanu kon ne benn bés faaw nu dee mëneesul muus ak waane ba bañ a jaar ci dee waaye lu tax nit wara jaar ci dee fan lanu jëm bu nu deewee naka lees fay deme laaj yooyu soxal nañu bépp doom aadama su ko waxee ak su ko waxul moo waral nu fas ci yéene gëstu ba tax nu tudde sunu njàngum tey mii fu nit jëm gannaaw dee kàddug yàlla nag moom am na tontu ci lépp lu soxal nit ci àddina ak ca laaxira kon dinanu gis li mu wax ci mbir mile mbokki déglukat yi bu nu jàngee ci biibal bi danuy gis bu leer ne yàlla mi sàkk asamaan ak suuf ak li ñu ëmb lépp nit li ci gën a fonk nit rekk la yàlla sàkk ci melokaanam mu am xel di xalaat loolu wuutale ko ak bàyyi may mu am xol di bëgg te it yàlla may nit coobare mu mën a tànn li mu bëgg a def cër bu rëy bi yàlla sedd nit seddu ko leneen seddu ko keneen fonk nit a tax ba laata ko yàlla di sàkk sax waajaloon na nit lépp li mu soxla ci àddina moo tax yàlla jëmbatoon ab tool tudde ko toolu ajana mu saxal ca tool ba lépp luy garab gu rafet a gis te neex lekk loolu lépp ngir bànneexu nit ak tawféexam ci dëgg-dëgg yàlla fonk na nit waaye ngir euh, nattu mbëggeelu nit ak euh, dégg ndigalam yàlla def ca diggu toolu àjjana ñaari garab garabu dund ak garabu xam lu baax ak lu bon noonu yàlla ne nit mën nga lekk ci bépp garabu tool bi ba mu des garabu xam lu baax ak lu bon gi ndaxte bés boo ci lekkee faawu nga dee kon xarit yi li yàlla bëggoon mooy aadama ak awa wone seen wegeel ci topp benn ndigal képp waaye ndeysaan seytaane feeñu awa ci bindu jaam mu nax leen ñu lekk ca doomi garab leen yàlla tere woon ca saasa nag seeni bët daldi ubbeeku te seen xel dee ñu xam ne def nañu yaramu neen ñu daldi ràbb xobi garabi figg laxas ko ci seen ndigg ngir nëbb seen gàcce noonu mooy ni bàkkaar ak dee jaare ci aadama dugg ci àddina waaye yàlla xamoon na ni nit ci ndofam dina bañ kilifteefam di fexe jiital boppam dundam loolu mooy li yàlla tudde bàkkaar keroog nit dee na ci wàllu xel te loolu moo tax it benn bés nit dina dee ci wàllu yaram bi nit defee li ko yàlla tere woon ci la dee maanaam ci la tàqalikoo ak yàlla ci misaal dafa mel ni su ma daggee benn caru garab car baa ngi tooy ba tey waaye dee na ndax taqatul ci garab gi bés mu nekk dafay gën a wow te benn bés dina wow koŋ ba ñu sànni ko ci sébb mu tàkk noonu la ak nit itam tey nit a ngi dem ak a dikk waaye tàqalikoona ak yàlla ba mënatul def jenn jëf ju yàlla gërëm bàkkaar bi aadama defoon moom mi nu meññ nun ñépp moo waral nit wara dee benn bés te yàlla bugal ko ca safara sudul fay mukk ndaxte bàkkaar bi nekkoon ci aadama moo topp bépp doomu aadama mooy sunu maam te jinax du jur lu dul luy gas képp ku sàggan ba dee ci say bàkkaar dinga tàbbi safara ba faw bàkkaaru aadama tax yàlla ne nit pënd nga te dinga dellu nekkaat pënd moo tax dee du jaas ñépp dinañu jaar ci dee waaye yàlla aji mbëggal la ba tax mu waajal mucc gi doomu aadama yi soxla di almasi bi musalkat bi mu yónnee mu dee ca bant ba ngir ubbil nit buntu mbaalug bàkkaar benn bés néew yi dinañu dekki mu bugal ñépp ñi bañoona déggal yàlla bëggam yéesu ñépp ñi saxoon ci lu bon bañ nangu mucc gi yàlla waajal jaare la ko ci musalkat bi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 yéen ñiy déglu xam ngeen ne bare na ñu sàlloo def lu baax waaye su fekkee ne ngëm ci borom bi yeesu lalu ko du jëriñ dara nit ki fi def lu baax di tàmbalee mooy nga gëm ki yàlla fal yónni ko ngir mu musal nit ñi mu yéesu kirist moom yéesu sax nee na ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund kon ñi gëm yéesu gëm ay waxam te di ko jëfe ñoo ñu tànneefu yàlla lañu ci kirist booba àddina sosegul te jëf yu baax yi ñuy def du ci seen kàttanu bopp waaye ci kàttanu xel mu sell mi lañu koy defe ni ko kàddug yàlla waxe ne ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu ndaxte jëfu yàlla lanu moonu bind ci kirist yeesu ngir nu wéy ci jëf yu rafet yi mënu fàgguloon ca njalbeen ga kon xarit yi boroom jëf yu baax yi yàlla di gis keroog ca bésu àtte ba ñooy ñi gëmoon yéesu ci seen dund ñooñu nag yàlla leen tànnoon ca njalbeen ga noonu la ko kàddu yàlla waxe ci téereb efes saar benn naan cant ñeel na yàlla bàyyi sunu boroom yéesu kirist mi nu sottil ci sunu bokk ci kirist lépp luy barkel ci baatin te nekk ca bërëb yu kawe ya ndaxte ba àddina sosogul tànn nanu ci kirist ngir nu mën a teew fa kanam yàlla sell te ñàkk sikk ci kaw mbëggeelam seddoo nanu lu jiitu def nu ay doomam jaare la ko ci yeesu kirist ndaxte looloo doon yéene ju rafet ji mu tëral ci coobareem na ndam jolli ndax yiw wu rëy wi mu sotti ci soppem bi moom jot nanu ak deretam ji tuuru maanaam baal nu sunu bàkkaar ci kaw yiw wu yaatu wi mënu nu baawaanal te yàlla sol nanu xel mu mat ak dégg ci feeñal nu mbooti coobareem dëppook yéeneem ju rafet ji nu jaarale ci kirist mu tëral ne bu jamono yu wéyee ba lépp mat dina dajale lépp ci kilifteefu kirist mu kaw muy ci suuf te am nanu cër ci moom bu nu yàlla sedd lu jiitu ci dogalam moom mi doxal lépp ci ni mu ko àttee ci coobareem kon xarit yi nanu fàttaliku ne yàlla bëggul kenn sanku waaye ñépp mucc te tàbbi àjjana loolu mooy coobare yàlla ci bépp doom aadama seytaane mi daanooloon sunu maam aadama ci bàkkaar moom mooy ki nga xam ni dafa bëgg nit ñi sànku waaye du yàlla de mbokk déglukat yi bañ kenn sànku moo tax yàlla tëral yoon wu nit mën a rëcce ci àtte bi koy xaar noonu yàlla yabal yeesu musalkat bi moom képp ki nga xam ne moom moo mën a defaraat diggante nit ak yàlla bi yàq woon ndax bàkkaaru aadama moo tax kàddug yàlla naan jenn yàlla képp moo am ak benn ramukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp kon ñi gëm yeesu te wekk seen yaakaar jépp ci moom kàddug yàlla nee na bu ñu deewee it bés dinañu dekki ànd ak boroom bi di dund ci mbég moo tax mu nu ndegam gëm nanu ne yéesu dee na te dekki noonu it yàlla dina indaale ak yéesu ñépp ñi ko gëm te nelaw nu ngi leen di wax lii tukkee ci borom bi nun ñiy dund te des fi ba kero borom bi dellusi dunu jiitu ñi nelaw ndaxte ndigal lu jamp dina jëp baatu kilifa ci malaaka yi dëktu liitu yàlla jolli te borom bi moom ci boppam dina wàcce asamaan booba ñi gëm kiriste dee dinañu jëkk a dekki gannaaw loolu ñun ñi dund te des fi ñu ne fëyi ak ñoom jëm ci niir yi tase ji ak borom bi ci jaww ji te noonu dinañu nekk ak borom bi ba faaw kon yow mi nu déglu danga war a xam te nangu ne bàkkaarkat nga nga gis it ne amuloo menn pexe ngir tàbbal sa bopp àjjana te mbindeef ni yow it amul pexe mi gannaaw loolu nga gëm ci sa xol te wax ak sa gémmiñ ne Yeesu Kirist mooy borom bi te moom képp moo di sa musalkat noonu yàlla baal na la sa bàkkaar mën na la wóor ne boo deewee dinga dem àjjana lii nag du xalaati nit kese yàlla ci boppam moo ko wax xam ngeen bu baax ne yàlla du waxantu te it du wax di ca delluwaat gannaaw li yàlla maye dootu ko nangu mukk te ku mu woo ci boppam dootu la dàq mukk loolu la kàddug yàlla wax kon xarit yi gis ngeen ne léegi naka lees mën a deme àjjana yàlla mi sàkk lépp xam lépp mën lépp dafa bëgg nga xam ko di ko topp te boo deewee tàbbi àjjana ba faw waaye sama xarit fàttalikul ne yàlla ku sell la te tëral na yoon wu sell ngir képp ku ko bëgg a jege mën caa jaar soo fi bàyyee yoon woowu jaar ca wala neex naka ngay tàbbee ci àjjana yàlla ji kenn xamu ko dëgër bopp baaxul mu ngi mel ni nit ku jóge saalum war a dem gànnaar mu dem ba gaaraas dugg ci woto buy jëm kaasamaas te naan bu soobe yàlla dina àgg gànnaar ndax nit kooku dina uh, dugg biir gànnaar déedéet ci lu wér Casamance la ko woto bi jëme ngir tàbbi àjjana déglul bu baax ci yoon wi yàlla tëral lanu war a jaar moo di yeesu mine ne man yoon wi ku jaar ci man dinga mucc ñu bare ngi wax naan man de maa ngi góorgóorlu ci santaane yàlla yi ñooñu nag dañu réere mbir ne soo toppee santaane yàlla yépp di xëtt ci benn képp mu ngi mel ci kanamu yàlla ne xëtt nga ndigal yépp kon ba tey baakaarkat nga loo jub jub ci bëti nit ñi ak lu say jëf yu baax bare bare amul solo ndax mënuloo àgg ci sellaay bi yàlla bëgg noonu sànku nga te tàqale kook yàlla koo mën doon kon yëgal ne yàlla xam na sa tële ba joxe doomam ju sell di yeesu kirist mu dee gàddu sa mbugalu bàkkaar biibal bi nee na peyu bàkkaar mooy dee waaye mayug yàlla mooy dund gu dul jeex ci yéesu kirist sunu boroom mucc gi du lu ñuy ñaq may la mayug yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu ni yeesu waxe woon dem ne dafa war a judduwaat ngir am dund gudul jeex yow itam sama xarit danga war a judduwaat ngir mën a tàbbi àjjana bàyyil xel ci ne ñaari bërëb rekk ñoo am yu doom aada mën a dem gannaaw dee safara ak àjjana fan nga bëgg a dem yow man wóor na ma ne àjjana ngay tontu waaye fa nga jëm ëllëg tey ji nga koy sabablu ndax fii nga koy amee ci kaw nga gëm Yesu Kirist mi tuur deretam ngir far say baakaar soo ko gëmul nag xanaa di ko xeep ak a tuutal kàddug yàlla nee na dinga sànku ba faaw maanaam dinga tàbbi safara ci lu wér kon mbokki déglukat yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di tàggu ba beneen yoon su ngeen amee laaj ci njàngum tey mi bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddug yàlla wax ne tey ji la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi